voilà ñu ñëw fii toujours ci reportage bi ñu def euh, ci devanteur Ousmane Sonko alors te ñu fekk fi un jeune présenté wu noo tudd. man Cheikh Fall laa tudd. mais Cheikh yow yaa ngi may wax léegi ne détenu nga woon dañ la jàppoon. waaw dañ ma jàppoon waaw. ñaata weer nga def ci prison bi. man presque def naa sept mois bi ma jàppee ba ni ñu may bàyyee sept mois sept mois rëbës waaw. ñaata mois sept. waaw. alors mais mun nga ñëw ci maanaam dund bi ngeen dund foofu ci biir prison bi. non dund nañ fa dund bu metti nag. dund nañ fa dund bu métti bu kenn mun a wax fenn sax waaw waaye nag dañuy sant yàlla rek ndax ñun ñëpp fa nekkoon tamit ay doomi ndey lañ waaw ku ñëw rek nekk dootu ni politique dañ lay dalal waxtaan yow kafa yow reeg yow lu ñu am bokkoo ak yow. mais ñoom bi ñu leen jàppee lañ leen doon a ah xanaa leen tuumaal. Euh, association de malfaiteur. trouble à l'ordre public. Mm-hmm. Euh, xaw ma lan complot de état. Euh, rebelle. terroriste mënuma ko sax terroriste <laughs> ah. pour Sonko yooyu yëpp daal. waaw léegi kañ ngeen génn yéen. man maa ngi génn euh, kii euh, euh, kii février laa génn. waaw février février bi laa génn. waa mel ni ñëw tey pour dëggal sa bopp. waaw ñun ban ba ma génnee laa dëggal sama bopp laa ànd ak ci campagne bi ñoom Guy Marius Sagna waaw di ànd ñoom ci campagne bi ñun suba sax dañoo war a def campagne ñun dëtt ni politique yi. waaw ñun combat bi dañu ko bàyyi mu sedd. ndax waa ji mënuñu mën jàpp suñu leader yi. Mhm. teg leen insiste mettre sur Sonko suur bi nga jàpp fii ñun ñëpp a mer ñu fipp ñu fekk ñu ne jàppuñu yóbbu ñu gendarmerie foire dóor nañu fa dóor yi métti sonal ñu sonal yi méttee méttee métti mais lépp projet ba ñu ko jaral ak Ousmane Sonko ak bëgg suñu réew waaw comme tey nag duñ génn kaso nag di ragal waa ji waa ji comme ni ko Dambo joxe rek da nga koy jige tàppet la su door dóoree ku kuu bi dana métti mais kuu bu gën boobu nga koy dóor ñun moom lañ def moom nag waaw ndax moom xamul lu loolu moom jàmmaaroo la xam 24 muy bés boo xam ne ci lay war a voté looy wax jeunes yi jeunes yi nan dem jëli carte yi ubbi seen bopp yi dem wate ji Amadou Ba pël Fuuta la du sénégalais yaa ngi dégg baayam du sénégalais yaayam du sénégalais Khalifa Sall defe naa la la waaw euh, ñi ci des nag moom garaaw ñoom suñu doomi ndey lañ waaye nan xam ne réew mi daal fi mu ñun sënëf bi ñoo ko moom waaw nan génn ñu dem wate ji reer tëdd xëdd wate ji ndogu sibile ca kaw démb ni Cité Keur Gorgui mel Sénégal mel ko ah la la war a dàq ndax ñun dënnu ni politique yi ndax ñu mën a siggi waaw ndax ñun ñàkk a yor réew mi dara àdduna jëruñu ko. nee ko suba daal da ngeen di caravane yéen détenu waaw ñun détenu politique suba dañuy caravane ñu ngi. ci biir Dakar ñu ngi déparé Kër Massar Kër euh, Doyen Kër Doyen Kébé la ñuy déparé waaw ñu ngi ciy woo presse bépp nag nan ñëw waaw seetaan affaire yi waaye daal loo ci mën di dégg daal ñoo ci ginnaaw Sonko tey ba suba mooy suñu bakkan bii wasalaam merci